maa ngi nettali ma ni sëriñ Cheikh Tidiane si bi mu nekkee ci daara ji dafa am màndaa buñ ko daan yónnee bu trois mille francs fin de mois bu jot te ki koy yónnee mandat bi du ci def turam ba mu ñëw ci sëriñ Babacar si wax ko ko ko man daal dafa am mandat bu may jot te ma ku ma koy yónnee sëriñ Babacar ni ko fu muy jóge mu ni ko Louga mu ni ko defal enquête ci post bi suñ cheikh def enquête ci poste bi gis ni 3000 francs yi buuna alburé ko koy yónnee bi mu ko waxee sëñ Babacar sëñ Babacar si buuna day doomoo na la ku la doomoo nag danga koy bàyyoo ni ko kaay nga dem seeti ko mu ànd ak sëriñ Munir ñu dem seeti góor gi buuna alburé sëñ cheikh nee na suñu waxtaan maak moom keroog yépp li ma ci gëna a jàpp mooy lim ma wax ni ma doom sa yaakaar ci sa boroom na ëpp sa yaakaar eh, ci ci sa baay waaw yaakaaral yàlla lu ëpp loo yaakaar sa baay ni ko ndax sa baay dinga xëy suba ñu tàggee la ko te yàlla kenn du la ko tàggee nee na mu nekk leçon bu ma noté te ah, loolu boo ko teelee waajal lu bari du la bett waaw